mbokk auditeurs yu quatre-vingt-dix-sept cinq ñu ngi dalal tey ci suba si monsieur Seydina Alioune Ndiaye muy secrétaire général adjoint bu mouvement des entreprises du Sénégal euh, monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay maanaam Biaye di nuyu mbokk auditrice ak auditeurs yu Rewmi FM yëpp. alors monsieur ay waxtu yu néew ñoo des ngir ñu amal li nga xamante ni rek moo di prestigieuse cérémonie bu Corridor deux mille vingt-trois Euh, fête bi fu mu toll ak préparatif yi également fu mu toll ngir amal cérémonie bi. voilà jërëjëf madame Biaye maa ngi lay sant bu baax di gërëm ci invitation bi donc comme ni ñu ko xamee depuis deux mille quatre ba léegi depuis fukki at ak juróom-ñeent chaque année euh, président Mbagnick Diop ak MEDES ak euh, groupe promo consulting yëpp ak seen i partenaires dañuy organiser événement bu mag bi nga xam ne adduna bi ak Afrique ak réew yëpp dañ koy xaar muy corridor bi nga xam ne ren mooy dix-neuvième année bi. donc euh, euh, li ñu war a def yëpp def nañ ko comme li tubaab bi wax on a mis les petits plats dans les donc euh, ñu ngi préparé yëpp te lépp yemb na pour que mu am mu nekk fête bu rafet fête bu fête bu jaar yoon nekk moment boo xam ne nekk moment d'échange weccante ay xalaat ak aussi surtout ràññee kilifa yi nekk ci entreprise yi gën a xariñ yi gën a ràññeeku ci at bi lépp nag def ko ci si benn thème thème bi nga xam ne mooy persévérance ci tubaab mooy. Euh, gën a ñoŋal sa bopp gën a dëgëral sa bopp ndax xam nañ ne entreprise boo ci nekkee pour mën a am ay performance boo ko gën a dëgëral sa bopp gën a dëggal sa bopp gën a gën a xuus jàll malgré difficulté yëpp donc lépp lu ñu war a def def nañ ko ba pare te incha allah rabbi fii ak ay waxtu rek yu néew dinañ dem ci événement bi incha allah. lu waral ngeen tànn thème bi di persévérance. waaw li li tax ñu tànn ko mooy xam nga chaque année dañuy am thème thème bi weesu mooy c'était l'action am na yeneen thème aussi indi mais ren boo gisee ñu jël persévérance dañoo gis ne àdduna bi dafa dafa génn ci benn euh, jafe-jafe bu métti moo doon Covid 19 bi ñu teg ci guerre russe ukrainienne mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne jeexital ñu am économie Afrique ak économie Sénégal métti na malgré tout ça gis nañ effort yu président république yu teg gis nañ aussi effort yi entreprise yi di def pour gën a dëgër seen bopp pour bana pour éviter dépôt de bilan pour gën a continuer fay ay salaire pour créer pour continuer di di doxal seen i doxalin donc gis nañ ne at mi dañoo war a gën a primer mooy ràññee ñi nga xam ne ñoo gën a xuus dem maa malgré difficulté gën ñoo xuus dem donc loolu moo tax ñu choisir thème mu persévérance pour montrer que euh, entreprise Sénégal ak Afrique pour nga yor ko foo nga nekk nit ku persévérant koo xam ne du yitti rek nga bàyyi mais da ngay continuer xuus ak moom dem euh, di jóg di daanu di jóg di daanu ba taxawal lu dëgër loo xam ne dina ci mën a am jeexital ci nit ñi ak ci entreprise yi pour. Euh, at yii di ñëw incha allah loolu moo tax ñu choisir euh, thème boobu di persévérance. alors ren yan catégorie de distinction la ñu war a mën a xaarandi. waaw ren pour nag bañ a trahir euh, exclusivité bi incha allah cérémonie bi suba la day am donc ren na am ay catégories yu am solo muy catégorie yi nga xam ne mooy chef d'entreprise yi gën a ràññee ci ci wàllum pétrole wàllu gaz. agro agroalimentaire ak aussi jigéen ñi nga xam ne ñooy chef d' chef d' entreprise ndax loolu aussi waruñ ko fàtte am na jigéen yu bëri ñoo xam ne ñoo jiite bërëb kër liggéeykaay donc loolu aussi ñu ràññee leen tatagal leen félicité leen jox leen ay raaya ñi ci gën xarañ ñu jox leen raaya ci ñi jury bi di di di am ci nomine yi loolu tamit nekk lu am solo mais am na solo aussi ñu ñu sargal képp ko nga xam ne yaa ci Sénégal te xarañ xarañteef ak sa liggéey ak sa njàmbaar wane nga ko ci ni nga doxalee entreprise ci deux mille vingt trois bi. nga xamante ni ñoo am tâche bi ngir tànn ñëpp ñi nga xamante ni daal dinañ leen war a jox distinction ñan ñan nga ci jury boobu noonu. voilà jury boobu nag en ñi ci nekk ay borom xam-xam lañ ñoo xam ne seen xel dafa màcc lool ci nan la ñuy nattee ak xayma liggéeyu chef d'entreprise am na ay professeur d'université am na ay économiste am na ay banquier d'affaires am na ay assureur am na daal ay borom xam-xam ak yu mag. yoo xam ne képp ko kenn koo ci jël rek borom xam-xam la te kàngam la ci domaine am ñoom nag lañ dajalee mu nekk jury léegi nag ñu am ay nominé ci nominé yooyu nag ci la ñuy ñi nga xam ne ñooy nekk récipiendaire yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy eh, choisir sargal jox leen raaya bu rëy boobu nga xam ne ñëpp ko bëgg te nekk na raaya boo xam ne ñëpp ko naw lool ñëpp ko naw muy raaya nga am corridor door wan ne yow sa liggéey en tant que chef d'entreprise jàmbaang nga ci te ñëpp ràññee nañ la ci mhm. alors ren lu ngeen teg ci table bi en matière euh, de d'ambiance. waaw ren moo aussi comme chaque année rek ndax corridor aussi fête la ndax c'est la fête de l'entreprise c'est la fête de l'excellence incha allah bi on aura la grande star star planétaire Youssou Ndour et le super étoile bi nga xam ne gën nañoo tëgg donc képp ku ñëw mun nga préparer waale amaan ay daal yu souple pour euh, soo waree dóor ay quelque poches rek <laughs> mais comme chaque année rek dinañ joindre l'utile à l'agréable am na aussi yeneen artistes. yu mel ni carottes yi yu mel ni ñeneen ak ñeneen mais toujours la ñu war a mën a xaarandi foofu voilà et puis dinañ am ay invité de marque yu mag ah, ay état Sénégal dina représenté wu na am aussi patronat francophone dina am aussi lépp képp kuy représenté euh, organisme communautaire yi comme ay CEDEAO comme UEMOA comme yenn structure supranationale yu bëri dinañ fi yónnee ay ndaw ndax xam nañ ne événement bu incontournable la te bu am solo la daanaka mooy événement bi gën a rëy ci wàllum euh, organisation euh, de rencontre professionnelle bi am incha allah comme chaque année dañuy allier utile à l'agréable. d'accord kon en attendant actualité bi maanaam li gën a fës mooy corridor euh, deux mille vingt trois bi nga xamante ni war nañ ko amal suba ba corridor deux mille vingt trois bi nga xamante ni war nañ ko amal tey samedi juróom ñett fan ci weer gi ñu nekk nii. Euh, Monsieur Seydina Alioune Ndiaye mooy secrétaire général adjoint bu mouvement des entreprises du Sénégal ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf madame Biya jërë ngeen jëf ak seen mbokk auditeurs yi merci.